aujourd'hui nous assistons à sa mise en circulation Ben, euh, depuis ce matin, j'entends tant de fois, tant de fois, mais euh, il est nécessaire, euh, pour des besoins pratiques, de reporter autant de fois. L'essentiel, c'est que ça roule, que le train parte de la gare pour arriver à une autre gare. En fait, c'est ça mon premier sentiment euh, par rapport à cette euh, parenthèse. Mais euh, vraiment, je me suis réjouie, euh, étant au Sénégal chez moi, d'entrer tranquillement dans un train, de prendre le billet, euh, d'être guidée par des jeunes vraiment euh, bien, bien encadrés qui m'ont guidée pour, par rapport au train que je devais prendre et autres. Je me suis installée dans le train tranquillement, toute seule, sans avoir besoin, voilà, aucune difficulté. Je n'ai pas eu besoin euh, euh, d'une aide, d'une aide, voilà. extérieurs et autres. Et euh, à l'intérieur, il y a assez d'espace pour vraiment que je sois tranquille. Et les femmes enceintes auront le même sentiment, les personnes âgées notamment. Voilà, et ça permet de vraiment lancer le Sénégal euh, dans, les, euh, dans la mobilité urbaine des grandes villes occidentales et américaines et autres. Nous sommes des Sénégalais, nous aspirons à avoir le meilleur. et le président Macky Sall nous apporte le meilleur aujourd'hui waaw xam nga euh, coow coow si euh, loo xam ne vraiment tant que jotul tant que matul duñ ko def kon soxlawul coow parce que train bi mu ngi fii du dem beneen dëkk fii la nekk kon bi mu jotee tey vraiment ba def nañ ko euh, mu circuler sénégalais yi ñoo ko moom ak gan yi fii ñëw dinañ demaka ak dikk euh, si anam yoo xam ne vraiment niñ koy wax anam yu mucc ayib parce que train bi train bu bees la train bi euh, bu ñu nee tey dañuy rawante ak yeneen yi ñun duñ si rus duñ ci am gàcce parce que train bu bees tax le président Macky Sall jënd indil ko pour ñun ñii citoyen sénégalais yi dañ koy yellool moo tax mu xar si tànk tubéyam pour ñun tamit ñu am ni dafa dafa di loo xam ne ñu ñëpp ko war a rafetlu ñu ñëpp ko war a tiitaroo parce que tey boo demee yeneen dëkk ña dégg naa am na yeneen dëkk yu suñu wet yoo xam ne ñu ngi wax wax yi euh, nuñ koy waxee métro mais ñoom ñu ngi koy tiitaroo déjà te seen métro xaajagul commencé mais ñun lu ñu am nañ ko tiitaroo parce que ay sénégalais lañu te xalaat nañu am loo xam ne yu mucc ayib lay doon. kon nañu wax gàcce ngaalam président Macky Sall. jaajëfal ci